xasida yi moo nu war a dàqal lépp lu ñuy lekk lu ne jàng xasida yi moo nu war a dàqal. mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw loolu ni ngeen ko xamee ñu ngi dëgmal bis bu am solo boo xam ne. ñu ngi ci fàttaliku uh, tukki bu rëy boobu yi nga xam ne sunu jàmbaar ja sunu yaakaar ja Cheikhuna Ahmadul Xadim defoon na ko te waral li tey añ bu rëy wi te lépp di ay ngëneel mu muy bis bu am solo nag rawatina ci mbokki murid yi bis boobu nag euh, dafa bari luñ ci mën a jànge lool bokk na ci rek mooy ne wir yëpp euh, ci loxo yàlla ne euh, waaye lu la sa say noon mën a fexeel ak jumtukaay yun mën a yor lum rëy rëy ak pexe yun mën a nas ndeke soo ko bàyyee ci loxo yàlla wakiilu ca tamit dëgg yàlla dimbali la ndaxitam itam jullit bi moom taxawaay bi mu war a taxaw rek mooy ne lépp lu ko mën a dal mu gëm ne loolu la yàlla dogal ci moom waaye du ca yam waaye mu delloo ko yàlla te mooy wakiilu ci moom loolu de su ko defee rek yàlla daal koy dimbali su dee dëgg ci moom qul la yusibanaa illa ma kataba allahu lana wa mawlaana wa ala allahi falyatawakkali muminuun waaye ndeke bu yàlla nammee ci yow lorit amul ko mën a dox diggante loolu ak lor ca bu naree ci yow aw yiw amul ko ko mën a fànq وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله waaye ku yàlla tëbb yërmande met ah yërmande joojut kenn mënta dox digganteem ci mu agsi fi yow ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم kon ndekete ku wakkilu ci yàlla te wakkilu gi di dëgg ci yow yàlla dimbali la loolu yi nag ci lum ñu war a yóbbu rek mooy ñu gën a bàyyi xel loolu kon di gën a dellu te yàlla ci waxtu wu mën a doon ndax sëriñ bi daana wax ne ah, yàlla day du nit waaye am nay melo moo tax mu neex a liggéeyal naqaree liggéeyal li tax mu naqaree liggéeyal mooy ne boo sooboo ci aw yoonam du la ne fii laa lay fayee lii laa lay fayee ak waxtu sàngam laa lay fayee loolu nag soo munta muñ da daal di bàyyi ndiku nee na it li tax moo neex a liggéeyal mooy ne moom de bu bay fay day sotti rek du xam ba xam yaa ngi fii wala nekkoo fi kon loolu defe naa lu mat a bàyyi xel la ci koo xam ne dëgmal na koo xam ne suub na mu xam ne mbir yi. yombul lu baax moom faaw rek nga sonn waaye nag képp koo xam ne dëddu nga yàlla wan ko ginnaaw kooku nag mooy ki sooy dëgg-dëgg waaye kooku nag mooy ki ki ayibal nag dëgg-dëgg mooy kooku kooku nag mooy ki becc ngal mooy nag ki sori yërmande yàlla yàlla nañ ci yàlla musal. looloo tax nag mbokki jullit yi ñu ngi leen di wattandikuloo ngeen dëddu seen borom waaye ñu ngi leen di soññi di soññ suñ bopp ñu gaaw dëgmal fexe xam suñ borom waaye fexe xam sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa teg ko nag ci kaw ah daari cheikhul xadim mi nga xam ne amuñu lu dul moom moom mi nga xam ne ku dugg ci ak saxaaram day danga mucc tey da mucc ëllëg saxaaru ngërëm gaa ngi nii tey fii nun ku bëggul lu dul dem na jóg ñaani paas te mbooleem ku duggul bu deqee ba wëy nga rus sonn am gàcce nan ñaani paas rawatina nag jamono jii nga xam ne soppeeku gu gaaw a gaaw la soppeeku ci wàllu jikko yi rawatina jikko ci wax ak ci jëf mu jafe lool nag ci cam si mu mucc ci maanaam muccal ci àddunaam muccël ci diinam lu jafe la yomb na lool mu gëlëm loolu nag li koy saafara rekk mooy sobu ta baña gesu waye waaye ki sobu dafa war yor jikko yi dërëm bi nga xamne boromam da ko yor ab deureum ci loxoy boromam fexee la mel ne deureum ngir ab deureum ku ni mel noppal sabub ta noppal yor mbirimit do gis deureum na boromam te nga jënde ma leuf bu koy fasit ko na ay waji mbaa marot moy baña bëgg dara bañ a jéem a xam dara dëgmal yoon wi nga soobu rek loolu rek mooy saafara su gaaw si ndax ki soobu dafa war a dëgmal lépp loo xam ne da koy loo am njariñ la te sori lépp loo xam ne ay xiilaaki xaal loo xam ne amul benn njariñ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا